وصلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi yeesal santar suñu boroom subhanahu wa taala di dellu siwaat ak yéen ci suñu téere bi ñuy topp di risaala bu ibnu abi zayd alqayrawaani ñu ngi ci ñeen fukkeelu bunt bi ak ñett muy ba baabun baabun fi salaam wal istizaan ñu jëloon ci ay bind ba yegsi fi muy waxee ni wa tata'awazu min kulli shay'in taxaafuhu su dee da nga yor moolu traduction bu xonq bi yaa ngi page cent vingt-deux bu dee samoro daani biit yaakaar naa yaa ngi sept cent cinq am déet ci kaw samoro daani sept cent cinq ci ligne bi ci kaw la wa tata'awazu min kulli shay'in taxaafuhu mi ngi noonu samoro daani boo xoolee ligne ba ca kaw nga xool est-ce que page bi sept cent cinq la wala sept cent six sept cinq sept cent cinq ligne bi ci kaw rek da ngay xool ci wa tata'awazu min kulli shay'in taxaafuhu tey mooy le vingt-trois ci li nga xam ne mooy weeru rajab ci mille quatre cent quarante-deux di tombeek le sept mars ci deux mille vingt et un bu dee ni ñun ñëpp bokk nañu gis kon day wax rek ni wa tata'awazu min kulli shay'in taxaafuhu ngalla waay jullit del sakku laqu ci yàlla ngiree mucc ci bépp mbir boo xam ne yaa ngi koy ragal wa indama taxillu bi mawdi'in heure boo demee ba dal ci benn place aw tajlisu bi makaanin wala nga toog ci benn place ba tey rek an aw tanaamu fiihi wala nga fas yéene fa nelaw nga la waay waxal a'uuzu bi kalimaati llahi taammaati min sharri ma xalaqa maa ngi làqu ci gannaaw kàddu yàlla yu matale yi ngir mucc ci ayu lépp loo xam ne da koo bind kon mbokk kii day wax ni jullit da ngay war di ñaan yàlla mu musal la ci lépp looy ragal lépp loo xam ne da nga koo ragal da ngay xam ni kàttanu yàlla moo nekk ca moom amul lenn loo xam ne dana lor ci kaw asamaan ak kaw suuf lu dul loo xame ne nii yàlla ci joxe ndigal looloo tax ba jullit day ñaan yàlla musal ko ci lépp loo xam ne nii da koo ragal yonent bi alayhi salaam daanañu jàngal kenn ci yéen bu taayaa ba pare na ñaan yàlla musal ko ci mbogalu jahannam musal ko ci mbogalum bàmmeel ci jullit dafa war a ragal jahannam dafa war a ragal mbogalu bàmmeel musal ko ci fitna yi am ci dund ak dee musal ko ci fitna masihi dajjal waaye daanañu waxit ci suñuy ñaan mooy yàlla maa ngi lay ñaan yiw léppam la ca gaaw ak la ca yeex la ma ca xam ak la ma ca xamul maa ngi lay ñaan nga musal ma ci ay léppam la ca gaaw ak la ca yeex la ma ca xam ak la ma ca xamul allahuma inni asaluka min alxayri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam na'lam aw ma alimna minhu ma lam na'lam wa na'uzu bika min alsharri kulli ajilihi wa ajili ma alimna minhu ma lam na'lam loolee mbokku heure boo xam ne ñu ngi koy wax ci contexte bi ñuy dund dañu xam ne it julit war na koy bàyyi xel li jaaxal adduna bi yépp tey ji mooy feebaru corona loolee kon ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala musal ñu ci ndax ragal guñ ko ragal kat moo tax képp ci ñun takk ab maskam loolee kon gannaaw sabab lu yooyu da nga ñaan yàlla musal la ci waaye gannaaw loolu it mbokk julit suñu réew mit ñi ngi ragal ay fitna yooyu dollee ko ci fitna yi ñu dundoon fan yi loolu it ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla teggil fitna boobu ndax kat lu ñu ragal la lool ndax xamuñu fan lay teere kenn xamul fitna fu muy teere loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax yonent bi alayhi salaam daanañu wax ni koo xam ne da nga dal ci benn place wala nga fay fanaan wala nga dugg fa su dee ne da nga ne a'uuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqa nee na dara du la lor ci place boobu ba nga fay jóge loolee it képp koy dem ci mbooloo war na koy bàyyi xel jàkkalaam kaar buy duggulaam place booy demam lum mën a doon a'uuzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaqa maa ngi làqu ci gannaaw kaddu yàlla yi ba ko suñu borom nee na buñ jëloon géej yi multiplier ko par juróom-ñaari géej dolli ko ca mënul jeexal kaddu yàlla yi kon maa ngi làq ci gannaaw kaddu yooyu ci ayu lépp lu mu bind xamal ne looy ragal rek yàlla ko bind seytaane la jinne la guddi la bëccëg la jaan la feebar la bu mu mën a doon lépp yàlla moo ko bind allahu xaaliqu kulli shay loolu kon di mbir boo xam ne nii ñu bàyyi ci xel su dee da ngay jël beneen bind mu ne wa min attaawuzi an taqul bokk na ci sàkku laqu ba teyit ngay wax naan auzu bi wajhi llahi alkarim maa ngi làqu ci kanamu yàlla gu tedd gi wa bi kalimaati llahi tammaati ak ci kaddu yàlla yu matalay allati laa yujaawizuhunna barrun wala faajir kaddu yooyu nga xam ne mënu koo romb ku baax wala ku kaccoor gënug topp wa bi asmaai llahi alxusna maa ngi làqoo ci gannaaw turu yàlla yu selli rafet yi kulliha mboole seen ma alimtu minha wa ma lam aalam la ma ci xam ak la ma ci xamul min charri ma xalaqa wa zaraa wa baraa ci ayu lépp loo xam ne bind na ko génne ko melal ko ñetti tur yooyu yépp day duggante ci seen biir mooy li yàlla bind rek wa min charri ma yanzilu min alsama ak ci ayu lépp luy wàcc asamaan wa min charri ma yaruju fiiha ak ayu lépp luy yéeg asamaan wa min charri ma zaraa fi l ard ak ayu lépp lu mu bind tasaare ko ci kaw suuf wa min charri ma yaxruju minha ak ayu lépp luy génne ci biir suuf wa min fitnati lleyli wannahaar ak ci fitnay guddi ak bëccëg wa min tawaariqi lleyli wannahaar ak lépp loo xam ne day fëgg ca guddi di bette ca guddi wala muy bette ca bëccëg illa taariqan yatruq bi xayr xanaa lu dul aji mbetteel joo xam ne day bette ci yiw yaa rahman yow mi nga xam ne yow yaay borom yërmande ci wa yuqaalu fi naam ala kulli xaal mbokk kon lii benn ñaan la bu gudd boo xam ne moom moo ko tëgg wala mu jële ko ci ku ko tëgg mu dugal ci lenn yoo xam ne nii mën a nekk waxi yonent bi doonte ne ñaan gi tënkuwul ci na waxi yonent bi la bokk ñu lim ci wax rek mooy mi ngi làqu ci kanamug yàlla ga ni noonu ak ci kàddoom yu matale ya nga xam ne kenn mënu koo jéggi du ko baax du ko bon te mbokk suñu borom lépp loo xamee ne nii dogal la bu ab jaam di def lépp lu jaam di def loole yàlla subhanahu wa taala moo ko dogal du doon njëriñ la du doon lor amul lenn lu waay di def lu dul yàlla ko tuddoon dogal ko kii def lu baax munta def lu baax lu dul ci ndigalu yàlla kii def lu bon du def lu bon lu dul ci ndigalu yàlla lu dul ne borom lu baax le yàlla daa gërëm la muy def borom lu bon le it yàlla daa bañ sip la nga xam ne moom lay def ak turu yàlla yi nga xam ne mooy turu yàlla yu matale yi nga xam ne loolu yàlla rek moo ko xam asmaul husna yàlla ko xam yonent bi alayhi salaam daana wax maa ngi lay ñaanee ci tur yëpp la nga xam ne ni wàcce nga ko sa téere wala nga xamal ko ko lu neex say jaam wala nga denc ko ci xam-xamu kumpa bi nekk ci yow gannaaw ba yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci lépp loo bind lépp loo bind musal ma ci li wàcce kaw asamaan loolu la doon taw la la doon ay dënnu ya muy melax yooyu di ànd ak dënu di rey lu bari ci doomu aadama yi ak leneen lu mel noonu ak lépp loo xam ne day yéeg jëw ko jëm kaw asamaan lu bari ñu koy firee bàkkaar yi jaam yi nga xam ne mooy jurul musiba yi nekk ci kaw suuf yépp mooy bàkkaar yi jaam yi yéeg kaw asamaan moo ko jur ak lépp loo xam ne yàlla bind nga ko ci kaw suuf ak lépp luy génne ci suuf jiit la jaan la ak lu mu mën a doon ci mbindaafanu yàlla yi génne ci suuf ak fitna yi am ci guddeeg bëccëg ak lépp luy bettee xanaa lu dul loo xam ne daf ma bette ci yiw loolee kon lay wax ci ñaan googee boo jël beneen bind mu ne ba teyit wa yuqaalu fi zalika aydan bokk na ci musluwaay luñ ca mën a wax ba tey wa min charri kulli daabatin rabbi aaxizun bi naasiyatiha maa ngi ñaan yàlla ngir mucc ci lépp loo xam ne day dox yàlla jàpp ca karawi jéeyam ba inna rabbi ala siraatin mustaqim sama borom yàlla day mi ngi nekk ci yoon boo xam ne yoonu jub la yoon bu jub ba wa yustahabu liman daxala manzilahu sopp nañ ci képp koo xam ne daa dugg ci këram nga an yuqaal an yaquul mu wax ma sha allah lii mooy li neex yàlla laa quwata illa billah amul kenn ko am kattan ku dul yàlla jalla wa ala naam bokk bokk na ci it li mu wax ne musluwaay la mooy nga ne maa ngi muslu ci yàlla ci lépp luy dox te yàlla téye ca càmbaram jéeyam ba muy karaw jéeyam ba te loolu suñu borom dani wa ma min dabbatin illa huwa axizun bi nasiyatiha inna rabbi ala sirati mustaqim amul lenn loo xam ne nii mi ngi nekk ci kaw suuf commencé ca felya ba ca ñayya ba ca lu mën a doon jiin ak gayndeeg lu mën a doon koo xam ne mën naa jéego benn jéego lu dul ci lu neex yàlla la yàlla moo yor mboole mi jaamam mooy def ci ñoom lu ko neex ku nekk fu say jéego jeexee jeex na fu sa jëf jeexee jeex na fu sa noyyi jeexee jeex na lépp mi ngi ci kanamu borom bi subhanahu wa taala kenn mënu ko romb jalla wa ala mu ne it bëgg nañ ci nit ki su dee da ngaa dugg sa place liggéeyukaay nga dugg sa kër nga dugg sa tool nga dugg ci lu mu mën a doon nga ne lii de mooy li neex yàlla kenn amul kàttan ku dul yàlla loolu mën ko jële ca suratul kahfi julit ba dendoon ak saay-saay ba tooy tool toolu saay-saay bi dara manqué wu ca bal ñaari jardin la yu jàkkaarloo dara manqué wu ca mu bew jàpp ne moo ko may boppam mu ne ko moo ne teewoon nga ne lii mooy li neex yàlla ci kàttan ci loxo yàlla rek nekk te loolu it mbokk da ngay gis lu bari dañ naan dañ koy wax ngir mucc ci la nga xam ne mooy ay bët donte ne ne mi ngi gën a jum ci yow nga bañ a yëg sa bopp ca la nga xamee ni ni moom la la yàlla wërsëgal lu la yàlla wërsëgal rek xamal ne kàttanu yàlla la am na jaam bu la ëpp pexe foofu bëgg ko ci mënu koo am te ji da ngay gis waa joo xam ne nii mënul bind turam sax yàlla may koy immeuble yoo xam ne nii ay expert ñoo fa loué ay ingénieur ak i lu nekk fa loué kon loolu moom mbiri yàlla la su ko defee lépp lu la yàlla wërsëgal nga la waaye boo ca duggee waxal lii mooy li neex yàlla kenn amul pexe wala kattan ko dul ci yàlla jalla waala lii mbokk da ngay gis ne ay ñaan la yoo xam ne nii jot na koo wax gannaaw ba it bu ñu jël beneen bind mu ne wa yukrahu l amalu fi l masajid sib nañ ji liggéey ci biir jàkka ji min xiyaatatin wa nahwiha na doon da nga fay ñëw di fa ñaw aka rabb wala lu mel noonu wala yaxsilu yadayhi fiihi kenn du raxasu ci biir jàkka ji wala yaakulu fiihi illa misla shey il xafiif di su fa lekk it lu dul ay mbir yoo xam ne woyof la ka sawiqi wa naxwihi lu mel ni ay wogg yiñ daan defar mi ngi noonu ak loo xam ne dafa mel noonu nga xam ni du am ay xet ca du am ay salte yu bëri wala yaxussu fiihi shaaribahu kenn du wàññi ci jàkka ji say moustache wala yuqallimu fiihi asfaarahu kenn du ca lelli say we wa in xassa aw qalama soo wàññi wala nga soo lellee say mus dindee say wàññi say moustache wala nga lelli say we axasahu fi saw bi naka jël ci yéreem ngiree génn ko ci biti wala yaqtulu fiihi xamlatan wala burxuus burxuusan kenn du rey ca jàkka la nga xam ne mooy ay teñ ak i fel wa urxisa fiihi mabitul guraba yombal nañ it ci mu fanaan ca jàkka ja doxandéem yi nga xam ne nii fii masajidil baadiya dañoo romboon ca jàkka ya nekk ca kaw ga mi ngi noonu kon mbokk day wax ne jàkka waruñu ko def liggéeyukaay day liggéey say liggéey ñoo toog ca jàkka ji di ko fi liggéey jàkka ji place jaamu yàlla la moo taxoon yonent bi alayhi salaam naan su ngeen gisee ki ñëw indi fa am njaayam ne leen ko yàlla bu ko yàlla barkeel loolu kon mi ngi noonu mu ne it bu kenn di raxasu ci jàkka ji xam ngeen jàkka yi bu jëkk amuloon ay moquette yaakaar naa jaw jàkka léegi xel xalaatul di fi raxasu waaye bu jëkk comme jàkkay àll yi la suuf kese la woon waaye malgré loolu wuru su fa nekk dafa raxasu wuru su fa lekki dafa lekk lekk goo xam ni benn day saltel jàkka ji wala day indi xet ci jàkka ji jàng nañ ci lu passé ki lekk ay soble ki laaj bu mu ñëw jàkk même bu ko lekkee ci biti kon kenn du lekk ci biir jàkka ja lu dul loo xame ni nii du am déchet ci du am xet mi ngi noonu naka noonu it julit sant nañ ko muy wàññi ay mustaasham sant nañ ko muy lelli ay weyam mu ne loolu kenn du ko defee ci biir jàkka ji di dagg mustaash yi muy wadd ci jàkka ji di lelli wey yi muy wadd ci jàkka ji su di munte ñàkk lépp dajale ko sa yére ba pare nga génne ko mu ne it doo nekk ci biir jàkka ji di rey teeñ ya ak fel ya loolu moom xëy na beneen mbir la gannaaw ba mu ni ñi nga xam ne dañoo nekk ci dëkki kaw yi may nañ leen ñu fanaan ca jàkka ya li tax muy wax loolu mooy dëkk taax yi dafay am ay place yoo xam ni ay hôtel lañ koy tuddee yooyu soo demee mën a fay fanaan fa kaw ga nag du fa am mu ne kon dañuy mën ngaa dem fanaan ca jàkka ja loolu it muy waññe ne mbokk fanaan ci jàkka ñaar rek moo tax jullit war koy def tumuranke nga amoo fa fanaan wala ngay def itikaaf wala ngay def itikaaf loolu moo tax ba xëy na am na mbooloo bu baax ñoom des fois ñu naan dañuy tàggatu chaque mois ñu génn dem di fanaan ci jàkk yi foofu am nañ fa juyoo tuuti ak borom xam-xam yi ci loolu ndax jullit war naa dem rek di fanaan ci ay jàkk comme ça ca amul loo xam ne nii lu ko waral du itikaaf ala kulli xaal la ñu xamoon ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy fanaan ci jàkka day nekk weeru koor nga woor boole itikaaf mu am ay règle boppam bu dul loolu jàkka du fanaanukaay mi nga noonu jàkkalu fanaanukaay amma nag bu dee da nga dem ci àll bi nga xam ne des fois du am foo fanaan dara nekkul nga dem fanaan ci jàkka ji moom noonu la ko noonu la ko gisee waaw xam naa comme ni ñuy doon aadawoo it su doonte ne ne mbokk yi amoon nañ ci ci affaire ñaan yi luñ ciy laaj bala ñoo jàll ci yeneen bind incha allah ñoo seet ba xam dana amam déet incha allah naam bismillah nga dem ci jàkkat yi dafa jàng la nga xamante ni mooy say leçon bu dee ne leçon yooyee dafa doon loo xamee ne nii dafay jëriñ doomu aadama loolee da ngay gis ne dara nekkul ci lu mel noonu la nga xamee ne nii moom la ñuy bañ mooy suufeel gratu jàkka ci liggéey bi ndax xam ngeen jàkk ji bu ñu ko ubbee rek rab bi ñooy fi di rab uude bi ñooy fi di uude tëgg ba nekk fee di tëgg kenn xamul loolu lu muy nural moo tax ñu ne tere lañ ci liggéey waaye ki nga xam ne ab livre am rek la toog di jàng loolee da ngay gis ne nekkul loo xam ne nii lu ñuy tere la ndax lu bari ci li ñuy jàngale ci wàllu fiq tamit dafay jàngale wàlle àdduna ca loole da ngay gis ne leçon yi yëpp da ciy dugg wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam li xew ala ala ala kulli ndax ëbbali am na zikr ëbbali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale wu ci zikr amul zikr bu yonent bi jàngale ci ëbbali am na nag yenn borom xam-xam yu rafetlu comme ñu ne yonent bi dane óbbali de ci seytaane la jóge kenn ci yéen buy óbbali ne tëj gémmiñam ñoom ñuy def bu ñu óbbalee musulu ci seytaane waaye bu dee daal lañ jële ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu amut lam ñu jàngal ki tissooli na wax alhamdulillah ka ko dégg na ko yarhamukallah mu delloo ko yaxfirullahu lii wa lakum amma nit ñi ñenn ci ñoom rafetlu nañu bu ñu ëbbalee wax auzu mina shaytaani rajim caamini bu ñu géexee ne alhamdulillahi rabbil alamin waaye loolu lépp mbokk zikr yooyu jógewul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku koy def it nga bañ koo saxal ku koy def it nga bañ koo saxal wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam naam kii nekk itikaaf ci jàkka ji dañ ne su dee ne moom am nañ ko ko mën a indi lekk wurul génn di lekk feneen fu dul ci jàkka ji kon li nga xam ne moom lañ koy sant rek mooy lekk ba muy indi jàkka ji ba ñu doon lekk boo xam ne nii day ànd ak xet boo xam ne day déranger waaye dara nekkul ci ki nga xam ne dafa nekk itikaaf kooki mu lekk ca la nga xam ne mooy biir jàkka ja mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw waaw ala kulli xaal ndax la nga xamee ne nii mooy kuur bi nekk ci biir jàkka ji loole dafay nekk ci ay déggin jàkka ji lii nga xam ne dañ koo clôturer ku na xam ne mooy jàkka cosaan bi lee dafa nekk benn extension boo xam ne nii ci dafa taq ci jàkka ji allahuma bokkoon na li gën a rafet mooy lépp lu ñuy moytu ci biir jàkka ji fii ñu moytu ko fee du doon nag lu ñuy yemale ndax kenn du wax ni ki ñëw fee ci kóor ba di toog fokk nga julli ñaari rakka duñu wax loolu cour bi fa la ñu tabax douche ak yu dema noonu almuhim daal bu dee ne jàkk ji dañ ko def ñaari partie am na bu ñu clôturer fermé ko comme suñu jàkk bi leneen ñu tudde ko cour dañ naan les cours la su ko defee la nga xam ne mooy tere ba gën a màgg moom mooy jàkk ba ñu tëj clôturer ko la ko wër ci cour it wares na koo jëm di wormaal kemtaleel kàttan comme nañuy wormaale la nga xam ne mooy jàkk principal ba mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw kon incha allah ñu jël beneen bind mu ne wala yanbaghi du yey mukk an yaqra'a fi lxamaami illa al ayati al yasira du yey nga nekk ca douche ya di fa jàng lu dul aaya yoo xam ne nii aaya yu woyof rek la doonte ne xamaam bu jëkk ay kër la daan doon boo xam ne dañ koy réservé lu ci bëri ville bi yépp lañ daan ñëw di fa sangoo aada yooyu ci naar yi la amoon ñun xamuñu ko mu ne daal ku fa dugg ay aaya yu ndaw ca mooy aaya ya ngay musloo ak yu deme noonu waaye doo fa nekk ca xamaam ba nekk di jàng alxuraan ba continuer moo tax mu ne wala yuksir mu ne wa yaqra wa yaqra'u raakibu ki nga xam ne dafay war di dem mën naa jàng alquran ca kaw la mu war wal muttaji'u ki tëdd it bu ko neexee tëdd di jàng alquran wal maashi min qaryatin ila qarya ki jóge ci dëkk sàngam jëm ca beneen dëkkit yoon bi yépp bu ko neexee di ci jàng alquran wa yukrahu zalika lil maashi ila suuq sim nañ ko nag ka jóg dox jëm ca marché ba muy nekk di jàng alquran wa qad qiila inna zalika lil mutaallim waasi' lu dul nag nee nañ su dee ne kookee taaliba la buy jàng alquran pour mokkal ko kookee terewuñ ko moom même bu doon daa jëm ca marché ba it muy jàng loole nga xam ni mooy bindam boobee muy jàng wa man qara alqurana fi sab'in képp koo xam ne jàng na alquran ci semaine fa zalika xasan loolu day lu baax la wa tafahumu maa qillati alqiraa afdal mu ne waaye day nga fexe ba comprendre la ngay jàng ànd ak niiwal njàng ma loole moo gën baril jàng lool njàng moo xam ne settanteloo ko wa ruwiya anna annabiya alayhi salaam lam yaqra'ahu fi aqalli min salaas solo nañ ne yonent bi musul jàngal alquran ci lu yées la nga xam ne mooy ñetti fan mbokk kon day wax ni ki dugg ci ay wanag mooy xamam yooyu mën a ndox mu safaan ak sunu wane gi tey yi bu mu jàngal alxuraan lu dul lu néew amma bu dee suñ douche yi tey yi la gën mooy ñu bañu faa jàngal alxuraan lu dul ci ngànt nga xam ngeen am na ci lenn ci ay borom yi xam-xam lu mel ne ay Cheikh Nasir Albani ak ñu mel ne moom nee nañ sunu salle de bain yi bokkul ak douche yi jëkkoon salle de bain yi fa ñuy tere nit ki def zikr mooy fa nga tooy ga ca chaise ba waaye salle de bain yi nga xam ne mën nga fa teg sa mbaj ji teg fa sa éponge fanaan fa loolu dugg fa taxul ñu ni da ngay fay bañ a def zikr wala yu demee noonu ba nga xam ne ki loru woon dara nekkul mu laqatu foofee julli loolu ci waxi lenn ci borom xam-xam yi mi ngi noonu am na nag ñoo xam ni ñoom dañoo ni maadaama tudd nañ ko douche bu yaatoon comme jàkka jit pour ñoom douche la mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam kon loolu mi ngi noonu mu ne ki nga xam ne dafa war loolee oto la wala fas la wala mbaam bu ko neexee di jàngal quran ci loolu wal bu ko neexee sax julli ci bu dee julli gën a fiila la bu dee ne farata la bu dee moo yor commandement la mu war amul droit di ca julli farata kenn du am sa oto di ko dawal yor commandement bi farata jot ngay julli ci oto bi amma boo nekkee oto jàmbur boo xamee ni nii un kenn du la may nga julli su boobaa mën ngaa julli ci biir oto bi loolee doonte ne ne ñàkk xam diini suma benn mbokk bu nekk fii ci ñëw jàkka ji nee na ñëw na dem di jël horaire bi masalan ñu ngi julli 6 heures 5 heures di mu jot borom horaire bi ñëw hé ku julli na julli de man du ma taxaw ci yoon bi xoolal ma loolu mbokk jul ku julli daal sooy ba nga jul du ma taxaw de dégg ngeen moom noonu la bàyyee horaire ba dem ah jëli leneen ñi xamul dañuy julli ci waxtu wi jotagul waaye yow tamit ab jullit yow yaa yor sa horaire su neexee ab alkaati mu ne la par taxawal la pendant trente minutes suñu borom yàlla mu ne la taxawal dix minutes nit ñi julli nga ne doo ko def su neexee yàlla pëne ne tëll toj ngeen defa une heure de temps su neexee yàlla mu këpp oto ba sax benn yoon yow pare nga ne yow doo taxaw loolee mbokk musiba la amma nag bu dee ne naafila moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosa nekk ci tukki daana naafila ci kaw gileemam solo nañu mu naafila ci kaw mbaamam ca it bu booba fa jubluwaay ba jublu fa lay jublu bu mosaan taxaw ba jublu penku ba kabbar gannaaw ba day continuer même buy naafila jublu sow loolee may nañ ko ci naafila mu ne kii tudd it bu ko neexee jàngal quran naam bokk julit bu la neexee tudd day joor jaaxaan yor sa kaamil jàng loole dara néewu ci su ne Aïcha nee na yonent bi daana gegganoo la nga xam ne mooy ci sama pooj ba pare di jàng alquran te léeg-léeg danaa fekk sax ma ànd ak règle ndax yàlla ñëwoon jàngal ko diine ku ko waxoon ci sëñ caam nu dagg sa bopp ah waaw waaw yonent yàlla bi mi ngi noonu dafa ñëwoon di jàngale diine kon dara nekkul nit ki tëdd di jàngal quran nit ki it di dox di dem jóge dëkk di dem temps boobu ngay jàngal quran sunu mag ñi nga xam ne tombé wuñu woon ak portable alxuraan moo nekkoon seen lépp boo demee mag yi rawatina xëy na suñu saala saalu mag yi jëkk yi da ngay dégg ñu naan ah ndakaaroog Cees day juróom benn hizib la ndakaaroog Tëngéej day nangami hizib la dëkk yépp yi daan wëroon lañ ko doon waxee mooy hizib yi ñu ko doon jànge ndax fu ñu mësaan tollu ñu jàng alxuraan donc dëkk ak dëkk yépp dañ koo limité woon dëkk bi dëkk bi nangami isib la dëkk bi dëkk bi nangami isib la dëkk bi dëkk bi nangami isib la gis ngeen loolee mbokk mbokk mi ngi noonu mi ngi noonu xamuñu lu dul alquran léegi nag portable yi moo jël relais am nañ ci yàlla musal kon mu ni kuy dox mën ngaa jàngal quran ci sa dox boobee mu ne nag waaye kay dox jëm ca marché ba moom moom bañ nañ jàngal xura ndax marché ba yaa ngi dem ngir suñ càb bi xalaat la ma nar a jëndi kon njàng ba day jaxasoo moo ne bu dee da ngaa jëm ca marché ba allahuma lu dul koo xamee ni nii nag ab jàngkat nga su boobaa terewuñ la nga def loolu alxuraan yi mbokk julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan ñaax sahaaba yi ci ñu bañ koo nekk di ko gaawe yenn gaawe yi looloo tax ba la ëppoon ci sahaaba yi semaine bu nekk lañ daan jàng lañ daan wàcc kaamil même boo xoolee téere yi bari yaa ngi ci gis bu ñu tuddee manzil ay wàccuwaay juróom-ñaari part lañ koy def loolu mi ngi noonu di ko jàng une fois par semaine loolu mooy li ëppoon ci li sahabatul kiram daan def yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom def ne mosu koo jàng ci ñetti fan doonte ne la mu waroon a wax ma yenent bi danaan wax naan ki jàngal xuraan lu yées ñetti fan du ko comprendre ki jàngal xuraan lu yées ñetti fan du ko comprendre amaa nag ba delloo ci borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu bari ci loolu ci ñi nga xam ne nii dañuy jàpp ne bu dee yenn place yi masalan lu mel ne weeru koor wala ki nekk makka wala ki nekk nangam nangam ba léeg-léeg ñu la ci wax ay jàngina alxuraan yoo xam ne tey bi montre jotee da ko folli nga noonu montre bi bi montre amee dafa weddi na loolu munta nekk almuhim daal nee na ngay jàng li ngay jàng nga comprendre ko même bu doon da ngay yem ci ñaari isib moo gën nga ne ratatatatatat cinq isib yoo xam ne làmmiñ bi rek moo ko wax loolee kon ñu bàyyi xel ci loolu bu baax su ko defee bu ñu jël beneen bind mu ne wa yustahabu lil musaafir an yaqula inda rukubihi sopp nañ ca kay tukki su demee ba yéeg ca waruwaayam ba su demee ba jamono bi muy yéeg mu ne bismillah allahuma anta salaam wala allahuma anta saahibu fi safar ay yàlla yow yaay àndandoo ci tukki wal xalifatu fil ahl yow yaay kañuy wóotal ca njaboot ga allahuma inni auzu bika min wa'sa'i safar e yàlla maa ngi làqu ci yow nga musal ma ca la nga xam ne mooy jafe-jafe yi tukki wa kaabatil munqalib ak tiisu nibbi ay dellu gannaaw ànd ak tiis wa suuil manzar fil ahli wal maal ak gisin bu ñaaw ci njaboot ak ci alal wa yaqulu rakib ida stawa ala dabba aji warja heure bu demee ba toog ca la mu war daaba ba mu war subhaanallazi saxara lana haasa ñi ngi tudd sellug yàlla mi nga xam ne moo ñu tàggatal lii wa ma kunna lahu muqrinin ñun day nekk ñu woon mukk di mën a not lii wa inna ila rabbina la munqalibun ñun day ca ci yàlla la ñuy delluwaat na am bokk kon ni mu ko waxee rek waa ji tukki war nay génn këram wax bismillah mu ne ah yàlla maa ngi dem de yaay sama àndandoo ci tukki bi te borom bi nee na huwa maakum ayna ma kuntum ay yàlla sama njaboot gi yow laa ko dénk de yow laa bàyyi nga wuute ma ci sang njaboot yàlla yàlla nag ma musal ci bépp coono buy nar a am sama tukki bi bépp tiis buy nar a am sama tukki bi ak bépp gisin bu ñaaw bu may dellu si di ca fekk sama njaboot wala sama alal loolu kon kay tukki na doon daa war ak daa warul loolu moom da koy ñaan amma bu dee da ngaa war jamono ji muy bind seen téere ñoom daa bare ko amoon waaye yow mi war sa oto sa avion sa bateau sa lu mën a doon heure booy dugg ci loole waxal bismillah gannaaw ba nga ñaan ñaan gi mooy subhaanallazi saxara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin ñi ngi tedd tudd sellug yàlla mi ñuy tàggatal lii bu dul woon ak yàlla mënuñu koo not ca mbokk suñu borom yàlla moo may doomu aadama lu toll ne fasu naaru góor nga tekki say bagage yor sab yar ali di dóor mu yóbbu la ba des vingtaine trente kilomètres yàlla ko tàggat waaye ku ne xam ne fas moo ëpp doole doomu aadama bu dee giléem moom waxi nappi kon yàlla moo ñu ko tàggatal ca ci yàlla it la ñuy dellu ca mooy mbokk heure buy tukki xalaatal ne yaa ngi ne ya maa ngi jëm Cees wala Ndar waaye xamal it yaa ngi jëm ci yàlla de mbokk fi ñu toll nii ñi ngi cib tukki de ñi ngi cib tukki tukki boobu bi ñu duggee ci jàkk jeg léegi une heure de temps wàññeeku na ci ñëpp ñu ngi dox jëm ci suñu borom mi ngi noonu suñu borom mi ngi ñuy limal ñàkk ñaata noyyi la ñuy noyyi ñu ngi jëm ci moom inaa ngi rabbina munqaliboon loolu it moo tax ba looy dox ci tukki bi it bul fàtte loolu te mooy yaa ngi dellu ci yàlla jalla wa ala loolu kon mbokk ngir ñu tëj bind bi benn yoon rek mu ne wa yukrahu tijaratu ila ardil adu sip nañu ngay commerce jëm ci suufu noon ya wa baladi sudan ak dëkk nit ñu ñuul ña wa qaala nabiyu alayhi salaam assafaru qitaatun min al azab yonent bi daana wax ne tukki day dogit la ci mbugal wala yanbaxi an tusaafira al mar'a du yey ci jigéen di tukki ma a gayri zi mahram ci àndul ak kenn koo xam ne sayda aram seen diggante min ha safara yawmin wa layla tukki boo xam ne day durer un jour fa aksar wala lu ko ëpp illa fi xajjil farida xanaa lu dul ci aju farata rek xaasatan mi ngi noonu fi qawli malik bu dee ne ca waxi imaamu malik fi rufqatin ma'muna su dee mi nga ànd nag àndandoo yoo xam ne ñu ñu wóolu lañu wa in lam yakun ma'aha zu mahram fa zalika laha même bu àndul ak zu mahram waaye am na mbooloo moo xam ne ñëpp wóolu nañ leen ci seen maandute dara nekkul ci mu ànd ak ñoom jëm ci at ga waaw mbokku lii dalay woon mbokku jamono ni muy changé waa ji bi muy bindi téere bi booba Afrique noire diine amagu fi presque wala boog ay benn benn la moo tax mu ne sib nañu ngay dem di tukki ci dëkk bi yéeféer wala di tukki ci nit ñu ñuul ña waaye xam ngeen tey jii mbokk julit nit ñu ñuul ñi moom daanaka ñi ci nekkul julit ñu néew lañu ñu ngi noonu en général noir yi la ci ëpp ay julit lañu loole jamono nag mooy dox ba yegg foofu mu ne nag tukki dogitu mbugal la naam moo taxit yàlla yombal na ko wàññi ne julli gi jéggal na la koor ga ba beneen yoon naafile yi nga daan def yépp it yàlla dala koy bindal même boo ko deful ngir coone tukki mu ne it jigéen du dagan ci moom muy tukki tukki boo xam ne dina durer vingt quatre heures ci àndul ak benn koo xam ni dafa aram mu séeg moom frère doom nijaay baay ak yu demee noonu xanaa lu dul ci aj màkke kese bu dee aj daal ci waxi malik ndax boo déggee mu ne waxi malik soo dellu woon ci yeneen mazahib rawatina mazhab ahmad yi siw arabi saoudite ak yooyu dañ naan même bu dee aj makka ci amul mahram warul aj waaye imam malik moom nee na su dee wóor na ne ni àndandoo yu wóor la am su boobaa mën na dem aji loolee kon mbokk mooy li yàlla dogaloon ñu jël jeexal ko ci bind boobi allah yàlla defal ñu aafiya fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain